syndicale et politique d'abord foofu problème deuxièmement notre sous-région est ceinturée par l'insécurité après troisièmement avec toutes les frustrations yi Sénégalais yi di dund mhm. ñu leen wax ni ah dina am wala du am troisième mandat mais mais yooyu yëpp loolu cocktail la boo xam ne boo ko boolee aw jóg amul ku ko antan xam nga ñoo ne dëkk bi am na ñaan yàlla na ñaan bi yàgg mais nit da ngay artu nit da ngay préparé wu quand on veut la il faut la sauvegarder di bañ di def yenn yenn yenn yenn déclaration yoo xam yow xam nga ni tegoo ko fenn fii ñaare fi am ñëpp nag seen intérêt rek leen tax a jóg ñii naan Macky amul warul am troisième candidature. Mm-hmm. ñi si gën a bëri seen intérêt kese moo tax a jóg. que mhm. dañu jàpp ni moom bu nekkul candidat ñoom seeni nit ñooy ñëw nekk président. Mhm. ñuy séddoo comme ñëpp ñoom it di cëru. wala ñi nga xam ni dañoo nekk si système bi système bi arrangé leen te système bi ki koy arrangé ki leen arrangé mooy Macky sàll moo koy incarné léegi ñu bëgg pousse Macky Sall si troisième candidature pour ñoom continuer di. jot seeni privilège dinañ ñëw ci troisième candidature bi ci pàcc bu gën a yaatu euh, Doudou ñu ngi wax scandale yi scandale à répétition muy am di am tey ki nga xamante ne moom la ñu jël lépp jox ko jox ko lenge yi ne ko yow yaay jiite tey su mbir amee moom moo war a gindi askan bi moom moo war a génn expliquer mais tout le temps il est affon mm. duñ ko dégg ci scandale yi su xewee mais quand il s'agit de taper sur un opposant wala dara il est à sortir. Mhm. xam nga boo waxee vingt trois milliards dans une nébuleuse ci marché vingt trois milliards. nga xalaat dellu si ginnaaw ñu ne la xalifa Sall ñu ngi ko toppee deux milliards. un cent et quatre. même pas. xam nga loolu loolu ça te pose problème xam nga boo mu ne yeewu suba teel dans une nébuleuse totale nga jël quarante trois milliards nga ne dafa ay sénégalais yu sonn. Mhm. dañ leen di jox ku ne quatre-vingt mille kenn gisul liste kenn xamul ci ban condition lañ leen ko joxe kenn xamul sax ndax joxe nañ ko ba pare ñu joxe ko ci benn contexte boo xam ne contexte électoral waa yooyu buy am ay ay ay ay scandale à milliards building administratif dix-sept milliards yegg cinquante milliards. la réflexion te boo xoolee bu baax mun nga lim dix ministères yoo xam ni. ba léegi ñu ngi loué Dakar mais mais cinquante milliards day tabax ay immeuble nga ne pour réfection building administratif ñu ne hmm. lan pourquoi ñu ko war a ñu ne c'est chargé d'histoire loolu mooy chargé d'histoire mais ñun ñun ñun ñun Sénégal on est trop nostalgique yow loolu building boobu nga war ko raser jël ko def ko ay immeuble moderne yi nga jox gouvernement yii nga loué def si rentabilité nga naan non c'est c'est monument la ça ça reflète la mémoire la mémoire collective des Sénégalais. Mmh. c'est chargé d'histoire mais yooyu yooyu yooyu yooyu est-ce que ça peut faire vivre un pays. un pays non. mais tey y a pas de communication là-dessus tey le président de la République est-ce qu'il ne devrait pas sortir parce que bii nébuleuse bii nag question de sécurité daf cee am. question wu stabilité réew daf cee am te boobu ba léegi moom duñ ko dégg mukk ci mu réagir ci façon yu mel nii pour wax ak sénégalais yi aw Diop Ndiaye bind leen président chaque jour chaque semaine bind leen président yéen groupe Walfadjri xam nga man man mosuma dugg pale sous leer Macky Sall mhm. ndax su ñuy wootee 31 décembre dañuy wax les groupe de presse la ñuy invité mais groupe de presse bu toll nii Walfadjri nañ bind chaque semaine ut leen benn waayu courier boo xam loolu rek lay def ñu bind rek di changer date yi rek di yóbbu pour pour demander une grande interview di président xam nga lu tax ma leen di wax ngeen def loolu suba bu ngeen taxaw fii mën na leen mais man étranger yi may defal ay ay ay kii. ñoo koy laaj ñoom is écrivent bu ñu prêter le flanc bu ñu tayal. nañ bi bind leen. mais est-ce que pour parler à son peuple il a besoin d'être interpellé su scandale amee le président se doit ñëw taxaw wax ak askanam. waaw loolu xam nga xam nga dañuy jooy Abdoulaye waat Abdoulaye Wade da nga ko daan ne cuq rek mu tàkk Abdoulaye Wade mun nga ko koj sax ci benn conférence xaw ma. si ah lan paix et développement xaw lan. rek nga cuq ko rek. mu wax waaw mu wax. à maintes reprises ça nous est arrivé. mais kii day tëj bunt yi. comprendre boo xam la xam c'est-à-dire ñoom la communication ne les arrange pas. pourquoi parce que non nu mu la nu mu lay arranger xam nga un scandale comme ça nga noppi bàyyi sénégalais yi ak euh, journalistes yi ñu fàtte ko dans une semaine moo gën ngay gën a xëpp kaani ci affaire yi di expliquer di di communiquer. mais quand il s'agit des questions politiques il est prompt à réagir mais quand il s'agit de question de gestion. ru dëkk bi luñ la dénk ëllëgu askan bi tegu ci sa loxo te doo ci yee yàbbi mais xam nga Macky Sall il est particulier yéen 31 décembre mu ngeen doon invité sax invité tout le monde il est particulier quand quand un président de la république mun dem ci benn waaye boo xam ne c'est un insulteur public créé chaîne saaga moo tax mu mu siiw nga dem accordé moom interview may ko toog ak moom muy poser question ngay toog xam nga kooku c'est un président particulier moo tax ma ne soit professionnel yi ne ñoom ñoo ko entouré mm-hmm. duñu ay professionnel wala wóoluwuñu seen bopp mm-hmm. man saa su ma yoree communication mu toll ni communication président mu dem di wax ak Californie man jour boobu laay teg suma lettre de démission bon comme que fii Sénégal euh, gouvernement bi dalay korom maanaam dalay jël jox la 4 x bu rafet ak Mercedes bu mag climatisé climatisé à à fond jox la bureau jox la yenn salaire yi yow daal da ngay wax garaawul quoi. Mm. lu am rek garaaw ñun on n'a pas la culture de la démission fii. mais est-ce que tey également ñun de la presse yow en tant que formateur. ci domaine boobu on n'a pas parce que tey jii suñu demee ba yeneen ëttu tas xibaar yu nekk tugal ñoom ñooy def ay investigation ci lu soxal suñu réew hmm. ñun tey jii journaliste d'investigation soo ne benn dootoo ne ñaar hmm. te ñun dénonciation la ñu waroon baaxoo tey on dénonce pas hmm. on traite des lauriers tey ay lodateur lañu waaw mais ñun ñun xam nga ñun ñooy ñooy métier boo xam ni kenn du fi def dix ans ñun ñooy métier boo xam kenn du def dix ans soo amee as tur bu ndaw ci transit de l'information vers la communication koo wax mu ne la le métier ne paypa pas mm-hmm. mais xam nga ñi ngay gis noonu ñuy def les enquêtes di ko génn mais c'est des journalistes chevronnés qui n'ont pas moins de vingt cinq ans d'expérience qui ont des carnets d'adresses qui ont des mais aw Diop Ndiaye xoolal tey suñu conférence de presse yi yow boo wootee conférence de presse mais tu as des stagiaires devant toi. Mhm. yuy ñëw ne la sempiternelle question quel était l'objectif de cette rencontre. Mmh. y a rien de profond. Mhm. xam nga loolu boo koy def nga am une presse comme ça une presse boo xam ni ñëpp xam nañ ni fii les gens achètent la yow léegi léegi léegi léegi suba tu fais toute la une de toute la presse ba pare régler revue de presse comme montre mu réglé wu comme montre mais aw jëm njaay xam nga man lu ma d'accord. Mhm. booy commercial da ngay lii sa commercial c'est-à-dire tu droit de dire que lii c'est commercial te foofu dama see respecter lu groupe Walfadjri mhm. c'est-à-dire ñoom lu commercial dañ lay wax lii sa commercial ñëpp xam ne lii sa commercial mhm. mais dem làqatu si affaire ay affaire ay waaw l'information elle est ba pare di ko jaay loolu moo grave mais loolu moo indi tey tey jii yow boo nekkoon journaliste dans un organe de presse nga fexe ba génnee enquête pare ko defar ko ba mu normal mais sa patron de presse mooy dem jaay jaay ko ki nga mhm. xam ni yow moom nga moom moom nga visé mhm. dans ton enquête mhm. war mu ne la booy lii dafa génn man mos naa mos naa dem benn réunion Euh, patron de presse yi CDEPS réunion boobu ñu ngi ko defee woon ñu ngi ko defee woon King Fahd Palace mais am benn patron de presse mu ne man sama journal balaa muy génn damay xool damay ñëw xool page yëpp xool ndax telle personne kenn waxu si lu ko naqari ndax kookoo tax man may fay kookoo tax may dund ku ko si wax lu mu si warul wax damay dindi article à la veille du bouclage waaw loolu loo ci mun donc jeunes journalistes yi ils ont envie de bien faire ils sont bien formés jàngal nañ leen les techniques d'investigation ah jàngal nañ leen l'équilibre mm-hmm. jàngal nañ leen ni ñu war a saytoo information mais boo demee ba def loolu yëpp et puis on te donne même pas le temps xam nga xam nga xam nga pour nga def des enquêtes il faut que les tâches quotidienne de la rédaction ñu mun la si génne. Mhm. pour may la temps mais fii nañu waxante dëgg dans nos de presse là boo ñëwee 9h ba 17h on te pompe. ba ba ba dootoo mun def dara. Mhm. donc tu même pas le temps de faire l'enquête beneen ni gars yi respecté étranger respecté ko parce dama ne le droit.